wax ni di gërëm bu baax a baax a baax a baax Benno Bokk Yaakaar yëpp di gërëm bu baax militants yi di dalal seen xel di leen wax ni que di leen wax ni que dañuy continuer politique dañuy continuer jàpp ndax Benno Bokk Yaakaar ndax Benno Bokk Yaakaar dañuy wax li leen nit ñi yaakaare ñu daal di koy def ñu mérité ko mérité benn li nga xam ne nit ñi yaakaar nañu ba def suñu président mu di gagné largement di peuple sénégalais que président Macky Sall permettre ko porter exercer efficacement li nga pour mu vraiment di définir la politique de la nation. Nous encore ñu féliciter encore président de la République ndax victoire bi nga xamni sur le plan national et sur le plan départemental Nous yëpp ñu de la confiance de la population bi de la ak li nga xam ni porté vraiment projet yi nga xam porté par sa vision gouvernement mais mettre en œuvre le gouvernement bi le projet est def nañ ko efficacement moo tax mu am résultat ñun ñëpp ñi ngi gëm ni mandat bii nga xam ni yàlla may na ko ko dina mandat bi nga xam ni da yokk contentement ak bonheuru population bi maa ngi yokk ci vraiment maa ngi ñaan mandat bi ñëpp gis seen bopp muy bien-être succès pour les grandes charges au service de la nation toute entière ñi ngi gërëm bu baax nit ñi di wax ni que fa ñu jàppoon nañu gën a jàpp nañu gën a jàpp liggéey liggéey bokk ndey bokk baay liggéey yéena ma woo pour wan leen di dama doon ñëw doon ñëw fii pour wan leen di bu leen mer bu leen wax dara ci formation gouvernement bi parce que gouvernement il faut ñu comprendre ni quinze 15 millions de personnes buñ la ci jëlee boole la ci même bu dee benn bis même bu dee ñaari bis waxuma naa ñu boole la ci pendant cinq ans defal nañ la teraanga bu rëy. bu nga xam ni teraanga rek jërëjëf rek nga ko mën a fayee ko parce que président permettre na la nga liggéeyal sa askan def fi dara parce que kat sama passage ci gouvernement bi permettre na ma créer 107 emplois yi nga xam ni maa ngi ko créé ci régulation ferroviaire te ñoom ñëpp Tivaouane fii la ñuy juddoo ñu ngi fay ñu ngi Tivaouane la ñuy duggoo fii la ñuy fanaan te ñu ngi liggéey depuis 4 ans ñi ngi liggéey donc vraiment ça c'est très na ma aussi permettre aussi aussi mu am ay opportunité ba teg un financement de 100 millions nit ñi di ci commencé am permettre na ma aussi ma xëcc ay financement DER ba aussi une grosse partie am nañu permettre na aussi ñu am ay possibilités yoo xam ni jigéen ñi surtout ñu am foo xam ni dañuy dem liggéeyi donc vraiment loolu yëpp dañ doon liggéeyal askan bi booy liggéeyal askan bi nag ah te dañ ni liggéey jeexagul donc vraiment li ñuy def rek mooy sargal gërëm président de la république wax ni ko ñi nañ ko continuer accompagner bu lu lu gën lu gën baax sax li ko doon accompagner lu gën baax lañ ko doon accompagner ñun ñëpp dinañu japp accompagner ko parce que ce qui est important c'est le devenir des Sénégalais c'est le devenir de la nation mu def de nouveaux programmes bo xamni day accélérer de fast track yooyu yëpp ñun nous sommes prêts à accompagner ko ci ba nga xamni limu nam ci Sénégal fi mu ko jëlee fi ko bëgg a yóbbu ñun ñëpp ñu jàpp pour yóbbu ko fa ak jàmm ak salaam di gërëm militant yëpp di leen wax ni que fa ma jàppoon fu ma jokkoon a jàpp ba nga xam ni toog naa an doonu ma nekkuma ci benn gouvernement na ma jàppe woon ma nekkee ci gouvernement continuer jàpp dinaa gën a yokk bu ma jàppoon benn loxo dinaa gën a jàpp ñaar ñetti loxo parce que ce qui important mooy que yéen ñi nga xam ni yéen ñu accompagner ba ñu nekk ci nguur gi yéen dañu leen war a sargal dañu war a njukkal dañu leen war a delloo teraanga boobu ngeen ñu ko jox te yéen yëpp nañ taxaw bu baax ci may delloo leen ba mat sëkk di wax ni nañ gën a takku gën a liggéey parce que booy politique c'est pour gérer la cité pour indil teraanga sa askan ci indi teraanga Tivaouane nañu gën a politique ndax loolu askan bi yaakaaruñu ko ba voter président Macky Sall largement ah ñu gagné largement fii ci Tivaouane à 56 pour cent loolu yëpp ñu mën leen a delloo affaire bi ñu mën leen delloo affaire bi donc vraiment fii la liggéey bi war a commencé ñu bokk ndey bokk baay continuer liggéey gërëm bu baax président la république parce que moo ñu ci boole woon te dama ni dama ni moo ñu ci boole woon may ñun li ñuy def yooyu yëpp moom lañ koy delloo parce que bu ñu mayul woon ma nekk sec euh, ministre délégué au chemin de fer kon 107 emplois yi ma créé ci régulation ferroviaire te doomu Tivaouane di ci xëy kon du ma ko am loolu yëpp am naa ko te ci doomu Tivaouane lay ñëwoo yeneen yi aussi bërkaati démb rek créé nañu près de 15 emplois ICS ñu wax ni ku amoon ku amoon permis poids lourd nga ñëw liggéey euh, ñu toppatoo ko Modou Mbaye toppatoo ko ñoom ñoom ñoom ñëpp ñu dem liggéey ñu ñëpp ñu dem liggéey donc vraiment loolu yëpp nag boo ko mënee

parce que politique gu woon pour am domba tank dañ donne politique pour changer le devenir des sénégalais buñ koy changer nak ci Tivaouane fi ñu dëkk lañ koy commencer changer le devenir des sénégalais motax le président de la république wër bi mu wëree ku nekk mu laaj la waxtaan ak nit ñi teg li ñuy wax PSE PSE qui est la quintessence de la demande d'avenir exprimée par les populations mu teg li un programme soutenu par sa vision et décliné en action et programme pour un Sénégal qui avance xam depuis bi mu pouvoir le Sénégal quand même avancé parce que loo gis rek am na donc comme nous avons ñu bëgg ñu avons ci suñu askan continuer pour ngeen di donc vraiment nous continuons tax continuer politique parce que nous devons continuer politique pour que yéen ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñi àndoon ak ñun nekk suñu ginnaaw ñu betti ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu yaakaaroon ñu dañuy continuer politique parce que bu dee loolu bu fekkee yow li nga bëgg ndomba tànk bu ñu ko joxul rek nga kii politique loolu mooy nga yow ñii la ñi la jiitaloon ñi la jiitaloon ba ñuy jox la ndomba tànk kon delloo loo delloo woo leen li ñu la wóolu woon ba jiital la donc dañuy continuer politique bokk ndey bokk baay defar ay projet man nga nit mën nga koo jàppale te do nek ci gouvernement nit man nga ko jappalé parce que jappalé bi moy ñu ñu bokk waxtaan defandoo suñu bopp ay projet ngeen génn ci ñun ñu génn ci c'est ça qui est important donc man maa ngi leen di sant yeen ñep di leen sargal di leen wax ni que meruñu defuñu dara ñi gërëm président de la république motax bi ngeen yëkëté seen xel yëkëti parce que je vous comprends je comprends li ngeen wax ni da ngeen ko mer motax mo ñëw di leen dalal di leen wax ni que vraiment li ñuy li ñu war def rek mooy gërëm président parce que li ñuy mer amu fi parce que ku la boole cinq ans ci gouvernement defal na la loo xam ne xëy na yow sa bopp defaloo ko sa bopp donc nañu continuer liggéey bokk ndey bokk baay pour pour avenir u Tivaouane pour avenir u Sénégal nga xam ne ñëpp dañ ci Assalamu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sunu xol dafa sedd sunu xelit dafa dal. ana lu ko seral moy tey jii militant yi nga xamanteni moy wa Benno Bokk yakar ñoo woo Abdou Ndéné Sall ci permenance bi nga xamante ni bi ñuy bëgg a def élection yi la ko fi def ci këram gi ñëpp di fi daje ñu xare fi ba am ndam lu rëy lii ñu am. tey jii nag militant yi woo ko di ko sargal ana lan lañ koy sargale mooy feddliwaat suñu engagement ci moom mu wax wax bu rëy. ana li mu wax mooy lan gën a takkuwaat gën a góorguwaat liggéeyal Sénégal topp ci ginnaaw président de la république ñëpp xam ni Abdou Ndéné Sall li ko ñor daal mooy Sénégal mrg wu te loolu ci la nekkoon depuis 2012 ba fii ñu toll kon ñun ñu ëlbatikuwaat takkuwaat booloowaat ànd ci ginnaawam ngir jàppale président de la république ndax daal amuñu ku dul Abdou Ndéné te xam nañ ne mbër mu mel ni Abdou Ndéné ku fi 2012 fekk xam nga ne moom mooy kan 2012 ba 2014 yorul ndombal tànk terewul muy jàppale président de la république di yokk Sénégal ca kanam kon 5 ans fi nekk tamit gis nañu li fi def kon bu nu toogee tey jii président di séddale li muy séddale kon dañuy wax ne ñun àndaat nañu ak moom fettaliwaat ak moom meruñu tey meruñu ëllëg ñi ngi bàyyi xel président waaye nag ñoo ngi ñaan président de la république nag dama ni am ndaa toj ndaa taxuta bari ndaa ta suñu mbër mi nag jàmbaar la teyit nag ñoo ngi am yaakaar di ko ñaanal yàlla fa mu bëgg yóbbu Sénégal mu yegg ko fa kon loolu lañ ci amoon ci lu ñu wax ngeen baal nu wax présidente de Linguère de l'émergence tey ndin fi dajale mooy que ni ñun ñoo wootee ndaje mi ñun partisan wu Abdou Ndéné Sall yi muy mouvement yi nga xam ni ñoo décidé ba dara dara nekkagul dara jàppale taxaw ci ginnaaw Abdou Ndéné Sall tey di boo sympathisants et les militants et sympathisants les mouvements de soutien l'ingère de l'émergence yi mi ngi fi man maay présidente les amazones ñi ngi fi waa MGET ñi ngi fi note euh, cogère départemental notamment seen président c'est seen secrétaire général mi ngi fi ADA mi ngi fi ay mouvement de soutien waa Jigéen Jom ñi ngi fi ak tous les militants et sympathisants de Abdou Nessal lu ñu fi dajale tey moo di ko suñu engagement ak suñu confiance wax ko ni ko ñun li mu def ci dëkk bi def ko ci réew mi def ko ci Tivaouane particulièrement ville bi nga xam ne moom fi la fekk baax bëgg mu jàk tax mu engagé wu politiquement te ba mu jàppee ba tey bàyyiwul chaque fois muy engagé wu di def teraanga nek ci gouvernement ak baña nek ci gouvernement ñun benn la pour ñun parce que ñun ba mu nekkul woon ci gouvernement le gënon na japp ci la gënoon engagé wu ba mu nekkee ci gouvernement bi mu continuer maintenant nekk ci gouvernement bi yena a dégg tout à l'heure nim ko waxé néna mom moom ba mu ca ba mu ca nekkagul dafa engagé won bi mu ci nekké dafa yok engagement am ba mu bañ ko ci génnee day gën redoubler d'effort wo képp kuy militant ak sympathisant nga nekk ci ginaawam liggéey parce que nak ñun tay tuawan rek ñu ñor luy développer tuawan rek moo ñu ñor kon Abdou ndéne dal ñun fim ko teg ñun fofu lañ koy teg parce que ñun moom la ñu xam moom la ñu jàpp te jàpp nañ ko te dootuñu ko bàyyi muy nekk ministre rek mu bañ a nekk ministre en tout cas daal liggéeykat la jàmbaar la mën naa dimbali askanam président nag booy wër jàmbaar jàppal Abdou Ndéné Sall kon nag tey moom foo ko teg dina fa toog te loo ko sant dina ko def bu barki Dembo Ndiaye teer bi nga ko sant gis nga liggéey bu mucc ayib ba mu ca def comme cadre la daal te nit ñi bëgg nañ ko muy jàppale askan wi ñun fu mu ni rek foofu la ñuy nekk lu mu bëgg moom lañ koy defal nee na bu kenn mer bu kenn yuuxu bu kenn def dara nañu ko xool ndax moom président la gëm président lay jàppale gëm na vision président mu def ko ministre day ànd ak moom mu bañ ko def ministre day ànd ak moom kon la mu wax rek ñun moom la ñuy wax asalaamaaleykum